marché il faut mu xat parce que marché bi encore ci xatul tuuti du mun a neex. Bienvenue au marché Sandiniéry, en plein centre-ville de Dakar. Ici, le fruit reste le principal produit de commerce et le thon, le véritable défi. fraise bi moom bu ñu ko jëlee force day jar rek sinon bu ñu koy day par exemple tey mën nga desee mën nga dese fraise bàyyi ko fi boo xëyee doo fekk mu jar da nga koy tuuri te loolu sa bénéfice sa xaalis lay nekk il faut mu jar ci journée bi sinon bu fanaanee du baax bu fanaanee rek loo ci waroon am xaaj bi nga ci am mën nga perte ay 15000 10000 20000 pomme orange citron pamplemousse raisin mangue mandarine clémentine melon fraise entre autres constitue l'offre en agrumes de ce célèbre marché, ravitaillé aussi bien par des fournisseurs internes que par plusieurs pays de la sous-région ou d'ailleurs. waaw ñun moom daanaka international la quoi parce que fépp lay jógee day jógee Maroc Afrique du Sud Égypte Europe fépp lay jógee quoi ci àdduna bi. am am na tamit yuy jógee Rosso frontière frontière yëpp en ah, Guinée comme avocat beeg yooyu ñun kay li ñuy ñaan mooy état nañu wàññil euh, douane bi. parce que dédouanement bi moom moo ñu gën a sonal ci côté jaayam fruits parce que ma fruits yi ngay gis ni yëpp warul cher mais dédouanement bi moo tax muy cher parce que da ngay indi sa benn conteneur ñu fayeeku la ay 6 millions 7 millions pour nga dédouaner loolu moo waral muy cher. Dans cet étroit corridor aux allures tropicales, le temps s'arrête presque à chaque fois qu'un conteneur arrive pour décharger une cargaison de fruits. ak couche yeeg yooyu day xaw a métti quoi pour nit ñi jàll pour exprimer léegi nag euh, loolu mooy loolu tamit suñu jafe-jafe la bokk parce que dèjà boo xoolee comme oto bii gaare beneen oto mënul mënul jàll. Ce manque d'espace est aussi pleinement ressenti chez les clients. jënd bi des fois dinay xaw a difficile aussi dinay xaw a métti aussi ci clients yi waaw parce que fii nekk na millier boo xamante ne si pour nga taxaw fi jënd sax des fois ça cause problème waaw en plus circulation bi jënd bi daal ça cause problème milieu bi milieu bi moo étroit fa xat doo am foo taxaw. Malgré tout la qualité reste au rendez-vous et la plupart des fidèles acheteurs de fruits sont satisfaits aussi bien du produit que des prix. man j'habite à Guédiawaye su ma ñëwee fii fii la gën a moins cher ci man je préfère ma jënd ko fii euh, une quantité yóbbaale. waaw waaw toujours noonu lay faral di def pratiquement fii moom fruit yi moom euh, nekk na bonne qualité. Pourtant, les difficultés de conservation sont de plus en plus présentes du fait du manque de chambres froides ou même des irrégularités notées dans la distribution de l'électricité. waaw parce que yor ngeen ay chambre froide mais courant bi tamit wax dëgg yàlla sonal nañu trop courant bi parce que. ñam ñi ngay gis nii yëpp foog ñu dugal ko ci chambre froide yi moom moo ñu gën a sonal courant. amoon naa ko waaye dama ëpp doole dépassé courant si ñoom ay deux million cinq cent quatre cent mille boobu dama ëpp doole. waaye si demee ba am coupure lu fi nekk euh, chambre de foire yëpp dafay yàq day yàq wax dëgg yàlla day yàq. ah non soo yeewoo fekkee euh, glacière bi nangul dafay ñor yëpp nga leen mujjee liquide soo jëndee douze mille. wala treize mille di nga mujjee jaayaati ay huit mille sept mille moo tax ñun tam jigéen ñi di jaay pete arrangé nañu marché trop trop trop parce que soo sande di nga am problème waaye na nga jëndee jaay ko sept mille nga jëndee ko douze mille treize nga jaay ko sept mille boobaa di nga am nga liquide ko pour mu mun a gaaw boobaa di nga am li ngay joxe borom plus des bi nga fayeeku nanka nang Dans ce marché à forte présence de la communauté guinéenne, des activités connexes au commerce de fruits se sont naturellement invitées sur les lieux. Il s'agit par exemple de ces vendeurs de carton dont le métier dépend exclusivement des volumes de transactions en fruits. dañuy dem ci biir dëkk bi quoi di jënd ay carton di ñëw di ko jaay borom fur bi waaw luñ ci am bu sunu bénéfice. per ensemble bi nii deux dañ koy jënd trois cent ñëw jaay ko cinq cent waa am ci deux cent quoi. Il s'agit aussi de ces livreurs de fruits qui font la navette entre les fournisseurs et les commerçants à bord de leur chariot. mango bi Casamance lay jóge day wàccee port wàccee bon maraîcher léegi na boobu na bu ñëwee ñun dañuy ñëw foofu noonu chargé ñu indi fii après wàcce mun nga am benn course si journée bi wala ñaar course ça dépend daal. marché poisson men itata men gaddataniger ga si client o yeehi marché poisson sodoyi men gaddataniger ga mais jona client o e min sarday ɗo 12 carton walla ɗuma ɓe yoɓa min carton o 1000 francs Malgré les tracasseries policières récurrentes, ils y trouvent leur compte, tant bien que mal. Mais idude idude marché poisson addi ɗo min wawi heɓude ɗo 4 barrage walla 5 barrage fof min yoɓa 1000 francs 1000 francs min ɓeynaɓe sime inni ɓe winda men ɓeyna ɓe windata sime ay ɓe windani men ala namen important ay wonde ɓay si goɗɗo ko jaggi men a taw nanga men a taw nanga men kadi taway ko ɓe windanta men ko ala namen important ay wonde ay ko ɗum noon fof men yoɓay eyi eh, hay ɓe windani men men yoɓay un profit qui repose essentiellement sur la continuité du commerce de fruits. Le marché sandinierie a assuré cette continuité jusqu'ici, malgré les défis qui pèsent sur son négoce. Les commerçants de ce grenier à fruits ont su s'adapter à plusieurs courants pour approvisionner la capitale sénégalaise en fruits frais.